l'actualité sur sénégaspora.tv Avec sénégaspora.tv, vous avez une couverture de toute l'information à chaud, 24 heures sur 24. Politique, sport, people, société, religion, économie, environnement. Abonnez-vous vite sur notre site. jeul ngeen jeuf mbokk internet yi ci tewlu bi dal leen ak jamm ci xibaar yi gëna fess tay ji alarba fanweri fan ak ben ci wéru août ñu doré ko ak nabu dash bi nga xamné yoon dal dina ko tek loxo ginnaw bi ñu jëlé ben plainte dal di koy jébal fi nga xamné moy division spéciale de la cybercriminalité mom nak nabu dash ay live direct la loon def di ci ngagn ay nit di wax naka sudul nonu ci la ka jëkkeeram ji di monsieur mergan ak sophie gey bi nga xamné ragné ko na lool ci walum social ne que fële ca Sen TV dal di koy plainte mom nak lata ñukoy koy jël dañ ko yónnee ay convocation yooni yoon mais mu jëw ci wuyu ben ci naka nonu nak lañ ko jëlsee biñ ko jëlsee nak laata ñu koy yóbbu foofu division spéciale bu cybercriminalité dañ ko yobbu fële ci hôpital euh, psychiatrique bu fan ngir xol ndax elle jouit de toutes ses facultés mentales fi ñuy waxee ak yéen nak muy garde à vue fële ci division spéciale bu cybercriminalité ñu addu wax ci Abdou Karim khourum Xaq di activiste bu ragné ko lol ci réew mi mom nak tamit jël na ap plainte djébal ko procureur de la république djémalé ko ci djéba mi nga xamné mo way la musaf mom nak néna clip bi ak way bi mengoul dar ak suñuy valeur comme nim ko tamé di défé nak lepp lu mu gis ni mengoul ak suñuy valeur da koy xex ci naka nonu nak la jëlé ap plainte daliko djébal procureur ngir ñu mëna censurer way bobu nonu nga xamné clip bi japp né ni pornographique le gëna ndirol vivi l'actualité sur Sénégaspora.tv Avec Sénégaspora.tv, vous avez une couverture de toute l'information à chaud, 24 heures sur 24. Politique, sport, people, société, religion, économie, environnement. Abonnez-vous vite sur notre site